Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf ndorteel campagne législative yi ci la yéenekaay yëpp xëy tey réew mi quotidien mi ci àddu nee na daal candidat yëpp soobu nañu ci wutum électeur ci dirub ñaar fukki fan ak benn bi nga xamante ne kon démb lañu ko daal di door ku ci nekk ci ñoom mbëbët bi mooy am ay député yu bëri ca assemblée nationale campagne bi door ci anam yu xumb bu ñu sukkandekoo ci las quotidien noonee tamit la ko l'observateur di xam ne ndax nee na campagne bi moom door na ci anam yu tàng jër naam tàng na waaye yëf yi dafa féete boor ndax la Soleil yéenekaay nee na li mu gis ci ndorteelu campagne bi ni ki démb daal moo di Pastef daal moo yor mbumbaay gi ak mbooloo mi ñenn ñi di tepp-teppal stratégie yi nag yéenekaayu an bi ne bëri na lool ndax ñi ay karawaan la ñu taamu ñenn ñi amal ay meeting ña ca des moom ci ay ndaje ak taskatu xibaar yi la ñu dooree seen campagne xeex bi diggante tête de liste tamit door na ndax Le Niayes ak Thiès la ko dooree Amadou Ba ca Guédiawaye Barthélémy Dias ca commune bu Biscuiterie Macky ba fi ñu toll nag dafa mel ni moom la ñu gisagul ki ñu gis démb yor-yor bi di ñu xamal ni du kenn ku dul Ousmane Sonko ndax na mu dooree moom njiital Pastef ñeneen ñi ñëpp kenn defu ko ndorteelu campagne bi xumb lool bu ñu sukkandekoo ci le quotidien yéene kaay ma jàmbal jaan bi jàpp ne nag yëf yi xeex la bi nga xamante ne diggante ñeenti adversaire lay doon muy Pastef bi nga tegaat natt boppam moom ci ndung Macky Sall mi nga xamante ne daanaka ci ay risque la soobu waaye tamit Barthélemy Diaz mi nga xamante ne dafa mel ni kuy wut place ci géew politique gi géew gi xumb lool ndax Walf Quotidien li mu gis ci ndorteelu campagne gi mooy jokkalante kàddu gi diggante opposition ak pouvoir ca Géejawaay amadu Ba mi fa nekkoon nee na li ñu gis jamono ji daanaka amul benn coppite amadu maam Diop bu APR nekkoon ñuy yor nguur gi jamono ji dafa mel ni xamuñu fu ñu jëm Sonko mel ni ku leen Pastef nekkoon politique jamono ji war nañoo weesu li nga xamante ne mooy ay kàddu yu ñàggas lépp ñu teg ko ci xalaat ak i programme waaye ndaxam li sonk wax dina antu les échos daal mag ñuy xamal ni démb ci ndorteelu campagne bi nemmeeku nañu fitna ci ndakaaru convoi bu Abass Fall dañu ko attaqué ci Mermoz Sacré-Cœur yenn ci ay militant am jëlee ci ay gaañu-gaañu ay nervi daal di leen attaqué lu bëri tamit ci seeni oto ñu daal di koy yàq waaye Abass Fall ci yéene bi tontu li moom koy waajal législative yi ñuy waaj nag dina bëri lool ay ndëgg sërëx bu ñu sukkandekoo ci 24 heures suñu naataango yi di ñu xamal ni Pastef moom war naa door beneenu komba ngir kon projet bi te bëri na tamit ay kàngam ci opposition yi nga xamante ne daanaka ci suul seen bopp la ñu jëm askan wi nag ñoom ñoo war a toog ràññee li nga xamante ne moom mooy dëgg ak manipulation dëgg Aliou Sall ci biir l'Observateur rakku njiitu réew ma woon sekk waxtaan wu yaa ak suñu naataango yu Média lu muy gis moom benn yoon lan moo waral mu bàyyi APR dem fekki amadu Ba menace yi nga xamante ne tamit mën nañu jàpp ne ñu ngi koy ngàll ci ndodd kii di magom Macky Sall ba ci sax coowal Franck Timis ak pôle judiciaire financier lépp daal na ci addu enquête addu ci ñàkk respecté appel à candidature ba fi ñu tollu mu mel ni jur na ci nguur gi waaye tamit yaakaar gi nga xamante ne tàmbale na tas yaakaar tàmbalee tas ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy aar alam ji Sud Quotidien mi def ab gëstu bu yaa ci trafic bi ñu nemmeeku bokk ci produit yi nga xamante ne ñooy jóge ci àll bi yéene kaay groupe sud communication bi gis ni loi bi daal dafa mel ni kuy favoriser dëgg li nga xamante ne moom mooy caxat-caxate gu ñuy def àll gi rawatina lu ñuy faat ci ay mala te teguñu ko ci yoon mu mel ni nag code bi nga xamante ne moom mooy addu ci wàllu rëbb gi ak lépp li nga xamante ne moom mooy aar mala yi jamono ji war nañ ko xalaat ndax màgget na parc national ñoo la ko bàyyi tamit jamono ji rëbbkat yi boo moytul ci yàq ko la ñu jëm li libération moo ni addu ci tukki bi nga xamante ne Bassirou Diomaye Faye def na ko ci Arabie Saoudite ci wooteek prince héritier bi mu mel ni Dakar ak Riyad dañuy gën a rataxal seen diggante gannaaw coowal Aquapower bi nga xamante ne jiboon na fi Nicolas Jackson mi coow toppan ca Chelsea réew mi sport mu ngi ñuy xamal ni moom doomu sénégalais bi daal dafa mel ni moo boot équipe bi ci boppam ndax démb waneeti na ko ak bit bi nga xamante ne dugal na ko tax ba club bi daal di am ndam keneen ki am ndam ci biir réew mi sport muy suñu gaynde yëngu footballu tefes gi ci samedi gi jël nañu seen juróom-ñetteelu raayeb champion d'Afrique record dikk ci ndam loolee nga xamante ne équipe bu Sénégal bu beach soccer am na ko mu mel ni kon dañoo toroxal rek ñii di waa Mauritanie juróom benn bal ci benn tax ba ñu daal di jël seen juróom-ñetteelu raaya champion d'Afrique jàngeen jëf. Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñu leen